yeeg jaaykat yeeg ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp journée zéro la ñu def tey romb naa tey ay boutique yoo xamante ne bi dama leen yërëm trop parce que tey xalaatuñu woon ni Sénégal tey dinañ wane image bu mel nii tey ñu bëri tey ñi nga xamante ne bi am na ñoo xamante ne bi dañ leen gaañ te seen yoon nekku si ñii jàpp nañ leen te seen yoon nekku si mais Sénégal nag li naan sénégalais boo laalee mbokk mu jóg kon tey Sénégal peuple bu Sénégal wane nañ ni tey Sénégal tey benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te Macky Sall nag yow ñoo ngi lay wax leen rek lañ lay wax tey yow bu doon yow góor nga nit nga tey ngay pare ci réew mi parce que sénégalais yi yàgg nañ la suur doyal nañ ci yow Macky Sall demal sa yoon Macky Sall dégage. ñu koy jaajëfal bu baax jagal aca kàggu mel dafa am loo si bëgg a waaw ñu ngi nii l'obélisque euh, dañoo yaakaar dañuy def direct caserne Samba Diéry Diallo mais dem nañ ba jub ko dévier waat wër dem fi nga xam ne mooy place xaw ma ñoom dañuy duggaat jëm fi nga ne mooy bu gendarmerie am déet en am na stratégie bu ñu def ñoom nee nañ dem brigade de recherche mais ñëw nañ ba jub ko dévier jëm fi nga ne moo di place de l'obélisque mais ñu ngi jot ay information que ñoom direct lañ bëgg a def porte centrale xam ne mooy mooy de recherche bu Samba Diéry Diallo fa lañ fa lañ a dem mbenn ñu ngi boyal ñu ngi taal ñu ngi yàq ñu ngi dajji mbenn lii am Sénégal jege gars yi rek ba xool gars yi lu ñuy def daa mel ni daa mel ni ñu ngi sukk kaagu di woote jàmm waaw mais mais ñu ngi gën a jege caserne bi de te caserne bi jege ko sama xel teeyu ci sama xel tey na ci ñu jege ko de sànnanteel xeet ci ñu jege caserne bi lii mu ngi bëgg a doy waar lacrymo yaa ngay dàqe grenade lacrymogène yaa ngay dàqe waaw waaw waaw waaw benn benn benn lii doy na waar te nga moytu benn xeer yi xam naa ne xamoo ko waaye moytul xeer yi foogoo baa tëj bamba aca ñu nañ ñu jip nañ ñu kii rek ñu liggéey ñu liggéey lacrymogène ñu ñuy sànni tamit il faut ñu liggéey jël ay image ndax loolu lay askan bi xaar si ñun mhm, kàggu aca mhm, maa ngi moytu bu baax maa ngi moytu bu baax bëgg nañ ñoo bëgg nañ leen a jox image yu rafet image yu baax waaye daa mel ni xañ nañu liggéey bi ndax ñu ngi sànnante ay xeer di sànnante ay lacrymogène kàggu daa mel ni jeunes yi amuñu accès fii de amuñu accès del nañ seen matuwaay mbel ñu ngi taxaw di créer beneen bloc ca beneen côté ba day mel ni dañuy wiiri ji waar mais oto bi bàyyi wu leen ci oto baa ngi nii may seen benn oto bee leen topp bu fu ñu rek oto bi daal leen topp ànd leen ak ñun rek dinañ leen jox xibaar tu wóor te wóor aca mu ngi noonu ñu ngi sànni ay xeer côté bu nekk côté bu nekk la la gars mhm. yi fële di sànni ay xeer bu nekk la gars yi fële di sànni ay xeer donc pour nous on man ko jekk dina war ah doyna war tay dal d'a melni mercredi noir lay nek waaw mu ngi nous ba ngi ñul kuku ndax bi la ndax rek sa rek jolle ndax nañ ay ak table. Ben. police mu ngi avancer ben stratégie bu bu baax lay day lentement donc ful bi di arrière bi ñu ngi côté côté caserne bi mais. Euh, policiers yi bi ñu la a arrêté nañ ba fa nga modi place de l'obélisque muy place de la nation. donc jeunesse ñu ngi fofu manifestant ñu ngi fofu gendarmerie ak police ñu ngi avancer dank dank ñu ngi avancer en bloc gis ngeen ko ni mais kàggu daa mel ni zone yi tamit ñu ngi ñu ngi defaat benen euh, ki bo xamne ne idée pour dajalo da melni ñu ngi defaat benen idée de. wa ñoom it dañoo am sen ay stratégie comme ni police amé sen ay stratégie parce que sa image yi may sen nële ci place robex moy ñu ngi dajalo pour songat gaay ñu ngi ni di dajalo pour songat gaay yi gis nga leen ñu ngi ñew ñu ngi sanni ay xeer ñu ngi ñu di ñëw def nañ bloc rek jékki-jékki mel ni su ma juumul mooy dañuy jékki-jékki rek mabandoo rek daw ñëw mbeen gis nga ko de waaw félicité tamit suñu suñu naataango yi nga xamante ne wàcc nañ ci terrain bi terrain bi metti na lool metti ñu ngi koy ñafe pour jox gaay yi xibaar yu wér te wóor loolu war da di buñ ko deful rek wàcc nañ suñu wareef donc faaw ñu wër information bu baax di leen ko jox donc mu ngi noonu yéen a toog seen i kër yéen ñi nga xam ne jotiwu leen Dakaaru fépp ci àdduna bi fépp ci ci ci Sénégal rek bépp raison bu mu mënti doon dinañ leen xoolal information yu baax yi rek ñu ñu leen ko naata sama naataango baa ngi wax ñun nekkuñu sécurité mbeen nga bëgg ñu xaañ ma mbeen lu tax yéene woo ma jàmm gars nañ ay civil ñoo ci ëpp oto baa ngi dañoo ñëw pour jàppale ñi nga xam ne ñooy gendarmerie donc benn oto baa ngi avancé ñoom ñu ngi taxaw di di saada seen xey da ngir tang kangi kangi ci poto yi mbang na de tang tang bu mom fim ne tang ne kuma xagn lay bañ moytul moytul bu baax way yow ñime nga de oh ata ah, police baangi ni baangi ni mom mom tamit mhm. xawma nak ay police ci nek xawma ñun ñu ñun arrêté ño ci nek mu ngi non nak mazan la toj ay du yom ci bop borom ala bay kala ji may deg mom tay ala bay lak di mazan lañ am fi ci dakaru no yi yu bees la yi ko defar ko soxor la ko defar da ko noyi noyee ko xam bu mu defar ni ayo bu ñu leen di ndox mu utiliser waaw waaw ndox mu tàng bi la ñuy noonu oto bi nga xamante ni mooy. daw na ba jub leen taxaw lancé ndox mu tàng la xaw ma lakk lumu. du ndox meen lakk di la. oto bi lakk di moo gis ngeen ko oto bi lakk di moo seen lay dégagé ne. daa mel ni ñu ngi daw ñu ngi daw gaa yaa ngay daw. tàggu da ngay génn côté bu ne. police yi nañ côté bu ne. gis nga gis nga gis saxaar si tax rek moo doo gis kenn. manifestant yi ko côté place de l'Obélisque yëpp gisatoo fa kenn. xam nga daal kële kële mooy seen jigéen la. xool ko xool ko xool ko benn li daf may fàttali juin ba Ablaye Wade bëggee ticket présidentiel bi jàll jeunesse bi yëpp a ci mbedd yi mu nekk benn soulèvement populaire ba mujj annulé loolu noonu tey loolu rek la may joxaat jeunesse bi yëpp day mel ni ñoo wàcc ci mbedd bu soutenir ki nga xam ne moo di seen leader Ousmane Sonko mais jege nañ gendarmerie nag ñu ngi ci ginnaaw caserne Samba Diéry Diallo fi nga xam ne actuellement fi la Ousmane Sonko nekk mbenn ba léegi gisee si image yi affaire bi tàng na tàng na lool tey moom mercredi noir la kàggu. kàggu jeunes yi daa ni dañ ko xaaj ñetti parti ñoom ñu taxawee nii ñu taxawee ne. mel li gis ëpp na ñetti parti côté bu nekk angle bu nekk ñu fa taxaw di sànni ay xeer. mel ni Ndakaaru yëpp a génn de zone Ndakaar yëpp nañ ñoom daal li ñu bëgg nee nañ mooy ñu euh, Ousmane Sonko mu di benn tànc tey daal daa mel ni mercredi noir lay nekk. waaw mu ngi dëkk baa ngi ñuul kukk ndax saxaar dëkk bi ñuul na kukku ndax saxaar foo xool rek foo xool sa bët rek saxaar sang fay jàllaa jolle ndax taal nañ fépp ay pono ak i table. Mm-hmm. Mm-hmm.